jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ci ranga ak def dara démb bi yëkkati jataay bi ci suñu tomb bii tudd awdatul xujjaaji ilal bilaadi ngi tolloon ci tomb yu am solo mooy yàlla dafa def dëkk ba ñu demoon muy dëkkub jàmm di dëkkub sécurité mu bëgg ku fa ñëw ku fa dem boo dellusee jàmmal say bokk jàmmal sam réew jàmmal say pénc dox jàmm ci di ko wax mbokk yi alxaju ibaada aj makka ak jaamu yàlla la waaye wa tarbiya aj makka enseignement la ibaada la ndax sunu borom moo ko santaane ci wa azzin fi nnaasi bil hajji ya'tuuka rijaala wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin amiq kon ibaada la ibaada la ndax sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon innama furid salaatu wa umira bil hajji wa tawaaf ah, wa li iqaamati dikrillah kon yooyu soo ko boolee daf lay xamal ne aj aj màkka ibaada la waaw ibaada la gu sunu borom gàll nit benn yoon ci dundam su ko mënee benn yoon ci dundam su ko mënee waaw man ko ci defoo ko nag gënut waaw man ko ci defoo ko gënut waaye aj makk googu nga xam ne ibaada la boo demee dafa fees dell ak i xiyam dafa fees dell ki maani alxiyam professeur mooy ay valeur bu fekkee noonu la ay jikko yu fees dell ak i maani waaw ndeysaan moo benn xarit keroog ba mu wàccee màkk la ne ba baa may faatu dey am na lu ma daan def ñu koy tuddee tux mu ne mu ne ko mu ne rus naa koo defati ndeysaan mu ne ah lee mu neex kon alxajju kon ibaara ibaara an majmuatin min al manasik wa sha'air aj màkk ay yëf la yu nit kiy def waaw ay yëf la ay jëf la ay wax la boo boolee lépp moo tudd aj mu ñu wutal ko temps buñ koy def ak barab buñ koy defee ndax lépp boo ko boolee mu nekk jënn jëf joo xam ne taraba wii la lépp enseignement la tey bu xale yi di dal jàng da ngay dégg ñu ne bu ñu nekkee jardin ñu naan petite section moyenne section grande section ñoom njinde géey bu ñuy jàngale boo fa jógee nekk ci ay CP ak ñoom seen yooyu foo nekk rek ay classe la ki aji màkka ki aji màkka tam nun la waaw bu ñëwee Madina wàcc fa bu demee ca jàkkay alayhi salaatu salaam am na lu jàkk ji war a def ci yow moom lu mu a def ci moom bu demee ziyaare ñett ñett ci biir jàkka ja am na lu mu a def petite section moyenne mu jóge fa dem bàqee xool ña fa tëdd boroom xam-xam nga toll ni imaamu Malik tëdd fa waaye homme d'affaires bu am ay milliards te nangu ko joxe ci diine tëdd fa mu wax Usmaan bun Affaan nit ki dem Màkka bu dee jigéen mu seen ca roq ba ca koñ ba ka nàmpaloon sallallahu alayhi wasallam ñu ko tudd alimatu saadiya mu laajte ñu ne ko baax gii nga nekk fi la suñu yaay Aïcha tëdd mu ne waaw bàq yaa am na lu mu mën a def ci yow lu rëy ndax ñi tëdd mat nañ ay junni junni junni nit jamono yi alayhi salaam ba léegi ña ngi fee rob feesagut buuxantewuñ amul coow amul rëj-rëj amul yàq der amul jëw ña ngi ne selaw rek tëdd boo fa jógee dem masjidul xiblatayni di ko ziyaare ji masjidul ni daa war a am lu mu def ci yow te mooy ñu déggoon ndigal ba ñu déggoon ndigal bu doon ci Dakar ñuy julli jublu wakaam ñu jàngal leen laaya ñu walbatiku jublu euh, jublu dëkk ba jam ñaajo walla ñu fekk leen ñu julli di jëm saalum ñu wax leen walbatiku ñu walbatiku ci biir julli gi jëm bëj gànnaar loolu am na lu mu war a def ci yow nga boole lee nga dem fu ñu tuddee xubaa xubaa boo fa demee war ngaa fonk jàkk ba boo ñëwee bala ngaa génn àdduna nga tabax jàkk mënoo ko nga def lu toll ni lu tabax jàkk ndax Sénégal gi ko dajalaatu ba am cinq millions boo ko joxee am jàkk yenn saa sax du ko mat yenn saa yi sax du ko mat waaw lu ama am solo la waaw lu ama am solo la tubarkal nu bàyyi ko xel te di ko jéem ndax jéem gi ñu koy jéem mën nañoo dimbale bañ mën caa def dara waaw loolu am na solo lool mbokk yi ci pénc mi fan yi yéen ngi dégg benn boroom alal bu ñu tuddee Abdourahman Sumayt waaw kooku ci dégg àddunaak am alal nee nañu tabax na téeméeri hôpitaux ak ñaar fukk ak ñeent wala cent vingt quatre hôpitaux tabax na ko téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti barab bi fajukaay occupé leen def ci yim ciy def mbokk moom mu defar tabax na juróom ñetti téeméeri école ak ñeent fukk mën nga ne juróom ñeent fukki juróom ñetti téeméer ak ñeent fukki daara samp na ko mbokk moomu ñaari téeméer ak ñeent ci ay centre islamique def na ko mbokk moomu ñaari téeméer ak fukk ak ñeent ci centre yu ñuy former ay jigéen def na ko waaye mbokk moomu ñaari junniy jàkka ak ñaari téeméer samp na ko allahu akbar loolu dafa am solo ci pénc mi lool dafa am solo ci pénc mi lool mooy kii dem xubaa ndax dafaa dem rek taxaw jënd sàndarma photo ah, mel ni koy def tourisme daal di ñibbisiwaat déedéet boo àggee xubaa ba ñibbisi déggal mbokk mi lim def ci ci àdduna si léegi faatu na ila rafiqil ala waaye wala sawfa yardaa ji yàlla waxoon abubakar sadiq xéweegul bu jaaj bi jóge foofa mbokk yi euh, dem Uhud dem Uhud seen ñu fa tëdd juróom-ñaar fukki nit lu leen tëral bëggoon dina ja ak si Sénégal mbokk yi nga jóge fa dem armal labbayka wu ba màkk armal am lu mu war a def ci yow labbayka am lu mu war a def ci yow nga def tawaaful xuddóom tawaaf war na am la mu def ci yow nga julli maqaam Ibrahim war na la ah, war na am def ci yow nga dox safa ak marwa noonu waaw nga jóge fa dem muna muna patron yi xam nañ lan mooy muna moo tax ñu def ak màkka VIP ak ñoom seen yooyu bëgg caa génn waa ju leen ca génne <laughs> waaw nga jóge muna dem arafa ca àll ba jóge fa fanaan si barab ñu wax musdalifa ci waaw nga jóge musdalifa ñëwaat a dem ca jamra ya sànni doxi safa ak marwa mbokk yi loolu kum deful ci yow dara rekk tabarkal moo tax danay faral di leen nett ci li benn xew-xew bu mas a am ci zeynul abidin ak taalibeem ba aji woon màkk Zeynul ak taalibeem ba aji woon màkk nga xam ne ba ñëw ci sunum réew sunu sëriñ sii bu ñu wooteeg màggal ki dem màggal ñëw war nañ koo laaj laa yu mel nii bu ñu wootee gàmm ki dem gàmm mu ñëw ñu laaj ko laa yu mel nii bu ñu wooteeb ziyaar ki dem ziyaar ñëw ñu laaj ko laa ji nii lu ko mooy gàmmoog màggal ak ziyaar ak yooyu yëpp nit ki mën naa dem topp ci nit ña ba ñibbisi jot mu ñibbisi du xam lu ko yëkkati du xam lu mu fa doon wut du xam lu mu fa doon ame waaw waaw loolu jar nay laaj nit ñi Zeynul Abidin radiallahu anhu mooy aliyu ibnul xasan wala ibnul xuseyn ibnu ali ibnu abi taalibin waaw benn taalibim aji woon màkk ñëw ko zam indi kurus tàndarma indi jàllaabi sajaada waaw dañ koy nuyu mu ne ko ah dégg naa ne aj nga mu ne ko naam yab yabna rasulillah waaw aji naa de yow sëtub yow sëtub yonent bi aji woon naa diisan mu ne ko ah aji woon nga mu ne ko waaw kañ ngeen ñëw bés sàngam ku leen yóbbu ñoom diw ah mu tàmbali koo laaj nag ci aj gi mu laaj yooyu ku jóge màkk ku nekk nañ la ko dëppal ndax danga am moyen walla déet laaj yi may bëgg a laaj nga xam ne Zeynul Abidin moo ko laaj taalibeem bii daf ne ko ndax wàcc nga ca miixaat ya ndax summeeku nga ci lu ñu lu ñu ñaw ba nga noppee nga sangu mu ne ko waaw def naa yooyu wàcc naa ca miixaat ya biir ali waaw summeeku naa sama yére sangu naa def nga ko mu ne ko waaw mu ne ko bi nga ñëwee ca miixaat yi ndax yéene nga fa ne lépp luy mbubbum moy summi naa ko tey lépp luy mbubbum topp sol naa ko tey mu ne ko déedéet ndeketeeg bi nga summee sa yére yi maanaam danga aji makka di góor da nga sol xaftaan sol mbaxana jiital benn silet sol tubéy jiital tubéy ju ndaw nga summi yépp ndekete li muy tekki mooy summi nga lépp lu tudd ak moy mu ne ko bi nga summi koo ndax summi nga lépp lu tudd ak mooy bi nga soloo ndax sol sol nga ak topp ataa ak topp ndax doomu aadama lu mu am ci kaw suuf ak topp moo koy may bàyyi tere ak jëfe ndigal laaj ko professeur Moussa Gueye ci Albert Royer yeeg ñit mel ni ñoom tey faj nit ñi fokk ñu la bàyyil nangam ak del def nangam rawatina ñu jabet xam nañ ci dara mu ne ko ndax def nga loolu xaala taalibe ne ko laa defuma ko de man de defuma ko noonu summi naa daal sangu naa waaw summi naa ci lépp luñ ñaw waaye lii daal li nga wax nii mun naa mu ne ko defuma ko gis nga benn tomb ngoog bu ñépp war a laaj seen bopp bi ñu ñibbisee mu ne ko bi nga summikoo ba ne dootoo sol lu ñaw li fekk yaa ngi armal mu ne ko waaw mu ne ko ndax yéene nga ne lépp lu njistal akuk naafiq ah ak dugg ci njaxas bàyyi naa ko tey mu ne ko déedéet loolu di defuma ko <laughs> allahu akbar mbokk yi zeynul abidin mi ngi laaj taalibe bi loo xam ne ujaaj yépp bu nu ñibbisee seenum réew moom lañ leen war a laaj seenul abidin mi ngi koy laaj taalibeem bi déggal ko wax bi nga summee sa yére yi ñaw ndax yéene nga keroog génn ci njistal ba faw génn ci naafiq ba faw génn ci dugg ci njaxas ba faw xaala laa mu ne ko déedéet defuma loolu defuma ko mu ne ko bi ngay sangu ndax yéen nga sangu min al xataaya wa dunub yéen nga sangu ci lépp luy bàkkaar ak njuumte xaala mu ne ko laa defuma ko léegi seenul abidin résultat bi nga ko jox mooy daf ne ko fa ma nazalta al miqaat wala tajarrata an maqiti thiyaab wala mu ne ko yow wàccoo ca miixa ya yow rafle woo ci lu ñaw yow sëngu woo waaw dinga alxuraan daf ne wamaa ramayta is ramayta ba ngay sànni sànni woo ak wax ne wala taqulu ma yuqtalu fi sabilillahi amwaat ñu ñu rey bu leen ne dee nañ bind ko tubaab ba daan ne les na ne sont kon ndekete dem ca miiqaat ya taxu faa dem moo tax mu ne ko fa ma nazaltal miiqaat ya wàccoo ci miiqa ya de wala tajarrata an maqiti thiyaab waaw yow summi ci yére yu ñaw de wala xtasalta sangu woo ah mbokk yi ku ci ne ci ñun nag day teg boppam ci foofu ndax moom nun la ko defe woon wala déet waaw ba ca tege mu daal di koy laajaat moom Zaynul Abidin ne ko bi nga setee ba set maanaam bi nga watee say kawar waaw poqutaan yeeg naq beeg yooyu ne mu ne ko nga armal daal di fas yéenee aj ndax bi ngay fas yéenee aj yéene nga tuub ci jëm ci yàlla tuub gi set wecc mu ne ko laa loolu di defuma ko mu ne ko bi nga armalee ndax ndax yéen nga ci sa bopp ne araamal nga ci sa bopp lépp lu yàlla araamal azza wa jal ndax loolu nga def mu ne ko déedéet mu ne ko bi nga yéenee aj ndax daganal nga ci sa bopp lépp lu yàlla daganal mu ne ko déedéet mu ne ko yow watuwoo armaloo fasoo aj mbokk yi Zaynul Abidina mi ngi laaj taalibeem bi waaye mi ngi laaj ñun ñëpp awdatul xujjaaji ilal bilaadi ndax yii biñ koy def ña ngi koy yëg wala ña ngi ko ca fas wala déet waxtaan wi jeexut dañoo ak suñu ko war yëkkatee ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seeni i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaaneen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii